Rafet bu baax seen ànd seen kóolute ak topp bi ngeen ñu topp ci diaspora news tv xibaar yi ci ab tënk ñu dal di koy door ak Anta Babacar Ngom candidat déclaré à la présidentielle de 2024 moom nag ñetti weer a ngi nii muy amal ab tournée de pré-campagne électorale profito ca di safonte ak askan wi ngir xam yan jafe-jafe la ñuy jànkonteel waaye loolee mënu koo def ba daanaka ci euh, teeyu euh, bakkanam ndax cortège am euh, bi ñuy tasaare ak bloqué à coup de grenade lacrymogène ci loo xamante ne nii moom Anta Babacar Ngom nee na teguwul ci yoon ndax kat ne yoroon na ab këyit wala bokk ab autorisation boo xamante ne ni moo waroon mën a tax mu mën a amal tournée boobee ci anam yu mucc ayib bu ñu doyloo ay kàddoom nag lu ginnaaw fa nga xamante ne nii moo di muy euh, fële ca euh, Kolda ba mu demee euh, Podor nag lu raw loolu la ñu ko dunduloo ñu àddu ci wàllu yoon ak yoonal muy di euh, ñaari euh, ñaar fukki euh, détenu yu Pastef yu nekkoon ci loxol yoon ñu doon leen toppee bëgg taal réew mi yeewi nañu leen tey jii si àllarba ji ginnaaw ba ñu leen dencee ca kaso ba lu tolloog juróom ñeenti weer bokk na ci ñoom ki ñuy woowee yarga si maam Pathé Mass ak kenn ci ay garde corps yu Ousmane Sonko. pënd ba wureegul ci coow li nga xamante ne ni moo soxal présumé contrat minier soxal jama bi nga xamante ne ni maître Moussa Diop sulli na ko démb sax dem sax ba di ci tuumal ki nga xamante ni moo le président de la république Macky Sall Aly Ngouille ak benn homme d'affaires bu ñuy wuyo bu wuyo ci turu Jean-Claude Mimram ginnaaw révélation yi nga xamante ne ni nag dal dina koy def dal dinañu koy placer en garde à vue mon maître Moussa Diop ci altiné ji lañu koy topé nak di teg ay jéego wala bok am ab doxaline bo xamante ni da fay néewal doole wala sax muy nësaxal suñu ay institution ak it fësal ay xibar yo xamante ni wérul moom nag weddiwul dara ci la nga xamante ne nii moom la ko enquêteurs yi doon laaj mu mel ni ci koo xamante ne nii avocat la xam bu baax ni yoon di doxe duñu ko àtte àtte boo xamante ne nii moom la ñuy àtte simple citoyen yi audience spéciale ci kanamu cour d'appel lay jaar moom maître Moussa Diop nekkoon fii directeur général bu dakaar Dem Dikk nekk itam candidat ci jongante palub njiitum réew yi ñu la xibaaru bitim réew

ñu tëj tënkum xibaar yi ca euh, Bénin ñaari soldat yu bokk ca l'armée ba euh, ñoo fa ñàkk seen bakkan démb si talaata ji euh, yemoo ak fukki fan ak ñaar ci weeru décembre ñoom nag seen ab moto moo jaar ci ab engin explosif ci jamono joo xamante ne ni ñu ngi doon wuti am ndox moo xamante ne ni moom la ñuy jëfandikoo ginnaaw gi lañu ñu si jëlee ay gaañu gaañu yu tar loolu sabab ñu ñàkk seen bakkan. mbokk yi lii moo fi euh, ruusandi woon ci ay xibaar jaajëfal leen bu baax a baax ci topp gi ngeen ñu doon topp dig daje ëllëg incha allah.